asalaamaaleykum Serigne Assane Seck xalif général bu Thiénaba maa ngi lay nuyu di la ziar di la ziare suñu way jurul fi bàyyeekoo xalifa Serigne Abdourahim Seck ma ñëwoon fii lu yàggul lool. si situation bu mel ni bii tey waaye dañu ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kon nag mel na moom xalifa suñu Abdourahim wàcc liggéey doonte ci mbas mi lañu nekk doonte ñu ngi xeex guddi ak bëccëg faw ma ñu tegaat sama tànk fii si Thiénaba jaale la ko ci turu réew mi yépp turu Sénégal yépp ngir nga jottali suñu njaal njabootu canaba yépp ak lu canaba eh, jottali ko kilifa diine yépp ci biir réew mi ndax kuréel lislaam bu mag moo fi jóge yàlla def bi ma ko xamee léegi de xëy na xilaafa gi yàggul waaye liggéey bu rëy tàmbali na ko def na fi it lu jar a tax na ginnaaw bu ñu la ko jaalee jaal ko njaboot gi yëpp njaboot gi ñu fi lim yëpp maa ngi nuyu kenn ku nekk ci ñoom di ko jox sama ziar di ziar ak di jaale njaboot gi mu fi bàyyi ak mbokk taalibe yi ak jullit yëpp. maa ngi nuyu itam ñi nga xamante ne fekk naa leen fii ci jotaay bi naam dem nañu leen waaye ku ci mel chef de village muy sëñ Alassane Nana Seck suñu maire Talla Diagne di maire bu Thiénaba ak imam ratib sëriñ Cheikhou Amadou Seck sa porte parole bi nga désigné muy sëñ Demba Sarr bon di nuyu suñu xarit l'honorable Oumar Sy ak euh, ñi ñu fi tudd yëpp bu ma bëggee jaar si ñëpp dina gudd waaye Thiénaba ponk la ci diine ci biir Sénégal lépp nag jógee ci wuroma diw bi fii noonu Thierno Mboudou Samin Manou Fee Mboudou Diouro xalifa tu wuroma diw loolu yàlla moo ko dogal ëpp na téeméeri at ak lu topp yàgg na kon Thiénaba bu bu xalifam wàccee Sénégal yëpp yëpp ñoo ko bokk mi moo tax bi xibaar bi jubee donte bitim réew la amee lépp lu ñoo doon def ci taxawaay ngir ngeen teel ci jot jokkoon nañu ko ak waa Maroc ngir loolu suñu borom mën ko sottal maa ngi lay féddali yow sëñ Assane sama fas yéene jàppale la ci yan bi la suñu borom yenn bopp Thiénaba fas yéene it yeggali yéene ñu amoon ak xalifa bi ak sëñ Abdourahim lu ko jiitu woon xam ngeen ne kër gan fii laa ko njëkkoon a sànc yàlla def ay tolof tolof tardel liggéey boobu ay tey jii lépp sotti na entreprise bi tànn nañ ko budget bi mat na près de huit cent millions pour que Thiénaba am këru ganam ci ni nga xamante ne dëkk dina yu mag yëpp noonu lañ ko amee loolu yéene bu yàgg la woon waaye léegi la ko yàlla dogal mun ko tàmbali ñu ñaan yàlla mu may ñu fekkee ko ba inauguré ko jébbal leen kër googu li ci des itam lépp loo xamante ne noonu la ñuy jàppale diine ji te loolu suñu constitution moo ko wax état bi dafa war a jàppale diine bi jàppale mooy ngëm yi nit ku nekk ci la mu gëm loolu mooy suñu wareef ñu donc loolu nag mooy taxawu dëkk yi dëkku diine yi taxawu askan wi su nu ñu mën a jaamoo seen borom ca du bëri jafe-jafe fépp fu ay doomu aadama di daje ñu fexe da ndaje moomu mën a am si jàmm ak salaam ci am ci anam yu muy gën a rafetee moo waral ñu def lii ñu def ci dëkku diine yi loolu nag nga xam ne sëñ bi fas yéene naa jàppale la si jàppale si njaboot bi yëpp kon ci gàttal loolu moo doon kàddu bi di fédéré sama kóllëre ak kër gi waaye Thiénaba yëpp waaye surtout yow itam xam naa sa taxawaay ak sa yéene lu jiitu lii fële si Thiénaba Gossas ba tey kon ñu ngi ñaanal yàlla mu jàppale ci yan bi te nga xam ne itam mu ngi sa wet lépp luñ mën def rek pour jàppale leen si daañu ko mu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jaale mbokk yi. ñoo ngi nuyu islam bi yëpp di leen ziara jiital ci bàyyi seexu canaba bàyyi sëriñ Xasan Seck ni nga xam ni mooy neefal xalifa canaba baax lool yiw lool tedd lool bàyyi as yàlla jotaay ñii ma doon présenté ñi ma leen présenté woon maa ngi leen di nuyoo noonu maa ngi leen di ziara noonu di ci teg ministre de di doom ci kër gi tabaarakallaahu di borom passeport ci kër gi am mbaax ci kër gi ñoo koy nuyu bu baax noo ngi koy nokkeel noo ngi koy ziara monsieur Amadou Ba ñoo koy nuyu di ko ziara doom la ci kër gi di taalibe ci kër gi ni njaboot gi lool di jëflante ak ñoom biir ak biti lépp lu fi mas a xew ak nu mu xele lépp la ko tawar def na ko ci ndax digganteem ak si yaram sëñ Talla ñu ngi nii monsieur le gouverneur noo ngi koy ziar moom it nuy préfet département koy ziar nuy sous préfet monsieur le maire Talla Diagne ak ñu ngi ko seqal bàyyi seexu Thiénaba nee na ñëw na ci dëkk yàlla ñëw ci dëkk Seex ñëw dëkk ci dëkk Limaam Mahdiyu tabaarakallaahu ñëw ci dëkk maam Amari Ndaak Seen 1882 la sos dëkk bii ci ñaar la kalimatu laa ilaaha illallah na yëkkatiku ba ñëpp xam ne yëkkati na te dëgg lal ko maam amari ndaag xeex ak dëgg ak bañ caaxaan ca na ba fi lu ñuy bañ amu fi dëgg rek a fi ak baatu laa ilaha illallah loolu maam amari ndaag liggéey def ko si njaboot bi xalifa bu fi ñëw loolu lay sàmm baa ngi lay nuyu bu baax ne depuis indépendance ci Senghor wàcc ci Abdou Diouf wàcc ci Abdoulaye Wade yow nag président bi nga ñëwee da ngaa delloo Thiénaba Seck gëddaam da ngaa joxaat Thiénaba darajaam joxaat Serigne Thiénaba gëddaam joxaat ko yitte ba fay bépp xam xam loolu président Macky Sall bi nga ñëwee gàmmu jot. ba gàmmu jot. nga xam ne canaba. nga xam ne ñoo yem ci yow. ñoo sa maandoo nga ñëw ànd ak gouvernement fekk fi bàyyi seex. jëflanteeg moom. jëflanteeg moom. ba ñëpp xam ne canaba. ci kër yu mag yi la bokk. di nga te delloo canaba. bàyyi sëñ canaba nee na. bàyyi sëñ canaba nee na. booba njaboot la woon. booba njaboot la woon. bàyyi Abdourahim bi fi jóge. bàyyi Abdourahim bi fi jóge. booba njaboot la woon. booba njaboot la woon. waaye ñëpp xamoon nañu. loolu rek ngay liggéeyal ndax ñoom jugee nañ fi te seen place moo ko toog bàyyi sëñ baa ngi lay sant ci loolu taxawaay boo taxaw ci bàyyi seen moom fekk na ko bàyyi Abdourahim mi fi jugee baax lool yiw lool ëmb ay yéene ci kër gi ak ci diine ji wante yàlla moom mooy def lu ko soob yéene yëpp amoon bàyyi seexu canaba nii bëgg na nga jàpp ci bu baax. ba loolu mën ko àggale. njaboot gii ànd ak moom. ñëpp ay gor lañ. du ñu yuuxu. du ñu jàmbat. ngir xam ne canaba. benn baat a fi nekk. waaye koo ci gis. mooy xalifa baayam. yor mbooloo. yor taalibe yor lépp. bu ñu woote woon ñoom ñëpp. ku ne indi say taal ak ñu ne yaakaar doo xaj fii tey waaye ñoom ñëpp jël nañ loolu jàpp ci ginnaaw ba si Assane Seck dimbali ko jàppale ko loolu nag président ñoo la koy seedeel ne su ñëwee ba toog ñu sant ministre de l'intérieur bàyyi seen caraba bàyyi Abdourahim daa demoon di faju ji yàlla def la gën ca moom waaye da nga yëgee bi yitte gi ñu def joxe ay ndigal ministre de l'intérieur bii ñu ngi lay seedeel ci yitte lépp loo ko waxoon ci biir ak ci biti balaa 48 ak ni jamono mel andi na ko fii bàyyi sëñ bi teg ci baatam ñu rob ko service am ngërëm li mu ngi ci biir lu amaat leen ngërëm nee na moom mii bi xeexoo bi am moom ko fekk Bercy ministre de l'intérieur taxawaat mu woo ko fa mu nekk yóbbu ko ambassade daggal ko billet première ni ko gaawal dem mbooloo ma lay xaar yooyu ci yëpp président Macky dinañ la xamal ni naa ngeen xamal ni. ak njaboot gi yëpp ak njaboot gi yëpp. def nga sa yitte. def nga sa yitte. ci sëriñ bii ci sëriñ bii. ñoom itam ñoom itam. dinañ def sa yitte. daa def seen yitte. ci seen biir yitte. def mhm. nga sa yitte ci sëriñ bi. président def nga sa yitte ci sëriñ bi. njabootam gii itam. njabootam gii itam. dinañ def seen yitte. daa def seen yitte. ci sa biir yitte. Mhm. Mhm. te yitte yooyu. ne yitte yooyu. yàlla ko yàlla àggale. bàyyi sëñ bii nag. bàyyi sëñ Assane Seck mii. mënatoo koo fay. dalaa bëgg ba jeex tàkk. ne tuumaal ko lépp ci yow. ne tuumaal lépp ci yow. mu wax ñaari baat. mu ñaari baat. ñaar yëpp fekk na. ñaar yëpp fekk na. gàmmu Gusaas. gàmmu Gusaas. boobu àdduna bi dafa ah, lëndëm. ah boobu àdduna lëndëm la. coow li lëndëm. coow li lëndëm. mu jël micro bi. mu jël micro bi. ni président Macky fu bidéewam suuxe. suuxe. yàlla wënu ma ko fenn. yàlla wënu ma ko ñëwaat fii gàmmu sëñ Ibrahima Seck. mu ñëwaat gàmmu sëñ Ibrahima Seck. bi sëñ bi di a tëj. sëñ bi Seck mii bi ñu a tëj. mu jël micro bi mu jël micro bi. ah de. daanaka ah coow li bari na de. sama waa ji waaye sama waa ji. bi déew. bi déew. gisuma fenn fu mu suuf. gisuma fenn fu mu te booba léegi. nee booba léegi. nee na gisagul fenn fu mu. nee na gisagul fenn fu si dul suuxee. kon loolu lañ ko bàyyi xel. loolu lañ ko bàyyi xel. njaboot daan lay gërëm. njaboot daan lay gërëm. ñu ngi lay sant. njaboot daan lay sant. ñu ngi lay ñaanal yàlla. ñu ngi lay ñaanal yàlla. dénkaat monsieur le maire. ñoo ngi lay dénkaat monsieur le maire. Talla Diagne Talla Diagne. taxawaayam rafet na taxawaayam rafet na. Seydina Omar Sy. Seydina Omar Sy. taxawaayam rafet na taxawaayam rafet na. Sëriñ Abdou Ngingue la. taxawaayam rafet na. Sëriñ Mandiaye Kébé. Sëriñ Mandiaye Kébé. taxawaayam rafet na. ak yeneen xale yi ci biir kër nañu seen taxawaay rafet na seen taxawaay rafet na waaye Talla Diagne nag day ñeeyu xare day ñeeyu xare te ko xam xamal nga ko sa bopp taxaw na sëriñ bi jàppale sëriñ bi mu ci ginnaawam di ko déglu tabaarakallaahu baat yooyu la bàyyi sëriñ bi waxoon ni boo ñëwee ba toog ko seedeel ñoo ngi lay ni ak bëggam ci yow amul frontière ak ñi nga àndal ñëpp ñu yor sa sécurité ba léegi ñu ngi fi lépp lu leen war def nañ ko taxaw nañ ko taxaw nañ ko tabaarakallaahu euh, di colonel Adama Guèye. colonel Adama Guèye. ak colonel Cheikh Sarr. colonel Cheikh Sarr. ak équipe bi ñu àndaloon. ak équipe bi ñu àndaloon. ak ak ak commandant. ak commandant Ngom. ñoom ñëpp ñoom ñëpp. lépp lu leen waroon lépp lu leen war dimbalee. def nañ def nañ ko. yàlla yàlla taxaw leen. yow tam président say bëgg-bëgg. xam nga ko xam nga ko. sa yaakaar sa yaakaar xam nga ko xam nga fa mu nekk ci sa xol fa mu nekk ci sa ko koo génn te mënu ko yàlla ko fekk foofu ko yàlla fekk fajal la ko ko ba mu leer nañ ba mu leer nañ ba yoon wi leer nañ ba yoon wi leer nañ ñëpp leer nañ ñëpp leer nañ nga doog cee teg say mu doogalee àdduna bàyyi seen sepp nee na ñu doomam mu ngi nuyu doomam soxna Marème Faye Sall soxna Marème Faye Sall nee mu ngi koy mu ngi koy sant mu ngi koy sant mu gis na nim la taxawoo na nim la taxawoo ci biir ak ci biti gis na nim la taxawoo na nim la taxawoo ci biir ak ci biti taxawaay yooyu yëpp yàlla ko yàlla yàggal sëñ Ablaye Mbaye Peex ñoo la koy dégg bëgg na la lool fonk na la lool téye na la secrétaire bi woote. ñu ko président ko président mooy mu ñëw mu ñëw sëñ bi ni ko. saxarit mu ne damay toog xaar am naa yàlla yàlla sàmm. am naa yàlla yàlla sàmm xaar ci garab. yàlla la bàyyi sëñ bi waxoon. loolu la bàyyi sëñ bi waxoon ni. bu ñëwee ñu yëkkati ko. yàlla jàmm sax. yàlla a jàmm yow président nit moom. te kenn mënu laa xañ jàmm te kenn mënu laa xañ jàmm. ndax ci biddewu jàmm. ndax ci biddewu jàmm. la la yàlla bind ci la la yàlla kenn mënu ko. nga ànd ak sa jëwriñ ba lépp gën a rafet. président sëriñ bi nee na maa ngi lay nangul sam njaal ba rafet waaye man. mënumaa wax président ci yow ndax man samay bopp dañ ma féetale ak yow te mu ba mbir mi mel ni aw tam ne man damay wax ci yow ba samay bokk di ma jàcc sëñ Assane wàññil wax ji ci ndax ëllëg man leen sama yoon ci ëllëg sama diggante ak président ëllëg dikkugul laaj ko premier ministre nee na lu ma waxati waxati yow président fi nga ñëwee canam ak fi nga yóbbu canam ko tudd dara ëpp ma ci ne sama xel sama xelaat fay mag yépp fekke naa man jàng naa la ba nee lu ma xamal ci yow président Cheikh Issa wax na ma lu ma xamul ci yow Alioune Dia ca Mbalaxe wax na ma ko lu ma xamul ci yow Arona Diakhaté bu Ndar wax na ma lu ma xamul ci yow monsieur le maire Talla Ndiaye jugal ci samay nopp nee yow umpoo ma waaye président Macky Sall baat bii may wax yàlla duma ci ak président Macky yaa baax président Macky yaa bari yërmande président Macky Sall yaa man njaboot président Macky yaa mën a dimbali jiw ne. fi nga jaar ak këri doomi soxla ba fii nga toog dara ubbuma ci këru diine bu ne gisee ak borom mu waxtaan ci yow genn këru diine góor dégg ni dana la ko gis président Macky Sall ñun doomi soxla ay gor lañu ah président du wóor de président duñ fekk couleur de ñun jàngulu politique buñ ci bëggee defar sax far ci yàq waaye ku la jàppale nga jàppale ko mokk na rub dégg nga président muy ndax doon na président Baye Asne mu ngi lay nuyu. nee na président ne Baye sa sa wajur ne kurus gii ma lay jox yàlla nekk nangu yàlla ci sa xaajo yi kurus gii baat ci tudd sa borom yàlla na ko yàlla nangu ne kurus yàlla bu mu nekk ci sa loxo balaa dina fekk bi xam ne laa ilaha illa allah président jël kurus gi kilo waaw gëm na ko it hmm. lépp day feeñal yéen ay maam Assane Seck ci yow ci monsieur le président ab tàmbali la ab tàmbali la bu baax président ñoo jërëjëf nee na ma nag yow